mu ni joxe na ko àddee Serigne Touba Xaadimu Rasuul cinq millions cent soixante-dix mille yi ñu ko dagg euh, te kuñ ci dagg rek règlement moo tax ñu dagg la soit da nga ëppal ay nit wala nga sotti ko comme keroog baax na am na benn suuf boo yor rek max bangaar yu ko dal ko lu muy sama tey bu ko sottee ko dinañ ko dagg quinze pour cent euh, li ngeen dugal ci ay nit également ëpp na loolu yëpp ñu dagg leen ko yow ñu ngi la dagg euh, cinq millions

seen bopp combat yooyu laa gën a dañ ma gën a dañ ma gën a descendre ci wàllu tàkk waaw nous avons combat bu ma seet damay def ba léegi gars yi ko wax naan combat bu bokk ci combat yi ñuy ñuy naan ba référence référence la combat yooyu ma def quatre millions et plus cher bii tey ah ñu def ma cinq millions de xaalis nag Vous pouvez dire ci louche mais je me suis dit que tu vois le sport le droit

bun bi ngay àndal baree du la gën mais finalement mbër bi moo ci gën a dee. waaw xam nga ñaari ñi xeex la ñuy fay mais sa morom day xeex ak moom ba dur ko te tooyoo ko sax dàgg la nga jël. xam nga ñoom doo ci débat doo ci sori parce que tey nit xam nañ ñu daal du koy def xam nañ ñu koy jàpp mais yàlla day laajte am na ñoo xam ne man du ma ci débat tout le temps mais lu suma boobu pare ko ñun def ko loolu dama ci am parce que loolu laa d'accord parce que jot na ngeen jóg aussi ma soo mënoon bëri daal d'accord pour ñu gërëm ci lu mel noonu wala ñu xeex lu mel noonu vraiment pour def ko xëy mu ci doon nga xam loo xam ne benn guub boo xamante ne teyoo ko dañu xeemaa ngir doon naa ko guub boo xam tey moo nga xam yàlla ñu teg un million six cent moom naan <laughs> benn guub léeg-léeg sax nga foo dóor sa mën a

li ñuy def mbëri billaay wallaay bu dee ko mbëri tegulul barki Cheikh Tidiane dañ ko layee dara loxo la te dërëm boo dërëm boo jëlee doomu aadama te baalu la billaay tooke la ci yow yàllaa ko billaay wax tooke na ko tooke waaw